nga xamante ne man waaw laa mooy. ah waaw. saa waay moo koy waaw. laaj ngeen ko mën naa ko. man bëri la woon di. waaw bëri laa woon. xam nga nag tey jii boo demee am nga àdduna lii moo ci bëri. waaw man bëri laa woon. yow bëri naa gën a. xam nga xam nga tey boo gisee boo gisee àdduna woon. dañ ko bëri li bu quoi. maa ngi fekk naa ko ci leen bataay bataay moo daal. waaye xamul dëli da du ko def yaay jëlal dama ne xamul dëli. nag ñu jaajëfal ñu waaye xuusal ñëw ñaajal jàll defoo fi dëli dama ne xuusal ñëw ñaajal jàll defoo fi dëli ñu war xuusal ñëw ñaajal jàll defoo fi dëli dama ne xuusal ñëw ñaajal jàll defoo fi dëli waaye xam nga dëli waaye lu mu ci laawal da ngay dégg ñaan moom ah dañ ko beral mention spéciale suñu aar pour këram di la yàlla nga dem ba dégg njaar ci sa kër ak ku la ko génne bu dëgg fa yàlla si sa woo bombardier i ñaare woo bombardier soxore woo bombardier ku def lu waxu dañ koy wax ku gis nga danga naan leen moo ngi nii te amuñu lu ñu gis amuñu lu ñuy ragal ndax ku def lu ñu war a wax dañ koy wax yaa ko def lépp la jëriñ yow macha allah yokku ci ay ndam li nga jëm dublu ko yàlla dàq bi nga wees ci naa ma xamal ci bàq bi Babacar bi ñu nga yaakaar. boo ko nga yëy sa kaw balcon daal di yéen daal di ah waaye kay borom béykat la bu weesee. di nuyu Afrique di nuyu monde entier ñëpp maa man maa ngi nuyu monde entier di leen wax ni nag contentement laa am bu mag a mag a mag a mag tey ndax euh, li ñu def tey di œuvre sociale ah ñebe da koo santaane l'islam santaane ko aada ah, rafetlu ko kon tey suñu porte d'entrée mooy Ngoné nii Ngoné nag sama diggante ak moom. defe naa su ma si wax la rek sama jigéen la sama xarit la sama lépp la moo tax bi ma waxee association bi dina yaay parrain bi parce si lool ngir ñëw te partage ñoom parce que man dama ko gëm mooy que tey ku doon sa bopp ah mu leen ngeen mel doo manqué dara waaye nag yàlla mooy nu mu ko neex waaye man damay wax ni kenn du xeeb doomu aadama bon dafa wax léegi ne mënoon naa ñëw nga xeeb ko man ak melu ma noonu yàlla bindoo ma noonu waaye nag lii bu ko gisee tey mu am nii tey yàlla ngay bari nii du man rek ndax dafa am si jàpp bu baax a baax a baax ndax nit mënaloo sa bopp lépp dafa am ñoo xam ne nag. mënuma ba yëkkatu seen tur ndax bés bii dañ see dugal seen doole bu baax a baax a baax su ma si jiital mooy Moussa Diop ñu gën koo xam si Moussa Loos di sama xarit ku ma gis gis ko euh, lii ngeen di gis soxnaam na ñu ngi toog lenn euh, sama soxna Ah, kii sama jigéen la maa ko may Moussa mu ëllëg bi jël dooleem bu bëri def ko si kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm Omar Mbaye Mbale di Mansour Diop numéro 2 moom na ay teraanga ci lii mu faal sama jëwriñ jëwriñ Dembaar dugal na ci dooleem. ma maa ngi toog di sama rak. ah bu ma ne si dooleel ndax oto bii ngay gis nii tey yamoon ceeb bi moom moo ko indi na lii maa ko fi barcelone Lamine Koyte mii doo sama boro la moom it dooleem dem na ci lii ah ak jëwriñ Demba muy Demba Ndiaye dooleem def ci dem maa leen di gërëm bu baax di gërëm Sall Sall def lépp dooleem bu baax di beral gërëm aussi Assane Ndiaye Assane Ndiaye Bawol production ko wax lii ne ko wax dëgg yàlla dafa am lu may def mu ne ma dinaa ko sama loxo non seulement sama site internet dina ñëw mais sama doole dina ñëw mu yebal pël mais tey pël ñëw def si dooleem ak énergie kon ñu ngi gërëm Assane Ndiaye bu baax ah, wax ne nag am na ñu bëri yoo xam ni sollicité woon naa leen wax leen bés bii waaye ñii ma lim nag ñoom ñoo si dugal seen loxo xaj na nag daa dee bëriwul liggéey yi bëri mais sant nañ ñëpp gërëm ñëpp di wax ni daal euh, lii sax booy seet moo ne waxtaan nañ si ma ne ko bu ma sañoon kenn du ko kenn du ko filmé ndax dañoo bëgg mu nekk sutura mu ne ma boo ko defee def loolu man mii maay bëgg ñu filmé ko ndax damaa bëgg kuy def lu baax nga fasal ko keneen ku bëgg def ko xamoo foo si jaar boo ko gisee sa xel nekk waaye yàlla xam ne dama sàkk woon ni dañuy ñëw rek teew def teraanga yi dem ak nit ñi. ngoone nii moo ma jox digal ne ma déedéet nañ ko filmé di gërëm bu baax it moo Madina mii doon jàng léegi sama xarit la sama doomu ndey la di gërëm Aziz nii di wax ne kontaan naa kontaan naa lool te ñaanu yàlla na mu yem fi waaw ku nga xam ne dëkk bi fi mu toll tey ak li xew si dëkk bi ñu góorgóorlu tey ba indi lu mel ni xeeb nañ ko lool nag. waaye yéen yemu si benn buñ sañoon dina gën a bari kon sant nañ leen gërëm nañ ñëpp comme guddi la damay bañ mu mu xaw a lëndëm moo tax ma teel a wax waaye jeexagul. jeexagul am na ñuy jaaxal ndax Abdou Aziz Sarr mii. waaw bëgg nañu barkeel. ak Seydou Diallo kooku du ñëw. waaw donc bëgg nañu barkeel kon toog leen ndax nag naa sànni kàddu yi mënul ñàkk rek moo tax waaye Abdou Aziz Sarr mii bëgg naa ko jox barkeel incha allah.